كما يراد جماح الخيل باللجم فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النهم والنفس كالطفل إن تهمله شاب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم فاصرف هواها وحاذر أن تولي إن الهوى ما تولى يسمع أو يصم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ووسيلتنا إلى ربنا مبعوث رحمة للعالمين wa ala alihi wa saxaabatihi ajmain amma baad asalaamualeykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen jox kenn ku ci nekk seen wàccuwaay di ñaan suñu boroom tabaraka wa taala moom mi nga xam ne mooy boroom mbindeef yi def bépp mbindeef boo xam ne ne yaa ngi déglu suñu kàddu mu fekk la ci jàmm nga xam noonu tamit nga yeewu ci jàmm ñëw incha allah ci seen émission di doawu subh te mooy ñaani suba ci seen émission wala ci seen rajo bi nga xam ne moom mooy Risaala podcast di ñaan suñu borom tabaraka wa taala defal ñu kàddu yu gën a mëdd kon incha allah ci jotaay bi weesu gisoon nañ ay ñaan yoo xam ne ne yu aju ci nit ki bu jullee ba pare incha allah moom nañ fas yéene continuer إن هي استحلت المرعى فلا تسمي كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدر أن السم في الدسم incha allah boo jullee ba pare bokk na ci ñaan yi nga xam ne ne moom nga mën a ñaan moom may allahuma aafini fi badanin allahuma aafini fi samain allahuma aafini fi basarin laa ilaha illa ant ma baamuwaat ko allahuma aafini fi badanin allahuma aafini fi samain allahuma aafini fi basari laa ilaha illa ant allahuma aafini fi badani allahuma aafini fi sam'i allahuma aafini fi basari laa ilaha illa ant loolu lu muy tekki nag mooy allahuma yow buur suñu borom tabaaraka wa taala yow buur yàlla ah, fi nii yàlla nga ma muccal fii badanim ci li nga xam ne mooy sama sama yaram kon yàlla nga ma defal kaaraange ak mucc ci sama yaram allahumma afi nii fii samahin yàlla nga ma def mucc ak ci li nga xam ne mooy samay samay dégg-dégg samay nopp allahumma fi nii fii basarin eh, fii basari yow suñu borom tabaaraka wa taala yàlla nga ma musal yàlla nga ma muccal li nga xam ne moo aju ci samay gët mooy sama gis-gis laa ilaha illa ant amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ku dul yow waaye tamit boobu ñett yoon nga koy wax beneen ñaan bi nga xam ne tamit mun nga ko ñaan mooy allahuma inni a'udhu bika minal kufri wal faxri wa auzu bika min azabil xabri laa ilaha illa ant allahuma inni auzu bika min al kufri wal faqri wa auzu bika min azabil xabri laa ilaha illa ant allahuma inni auzu bika min al kufri wal faqri wa auzu bika min azabil xabri laa ilaha illa ant loolu lu muy tekki mooy allahuma yow buur suñu boroom tabaraka wa taala inni naka man auzu bika maa ngi muslu ci yow min al kufri ci li nga xam ne moom mooy kéefër ndax nit ki lu ko dugal ci kéefër lu sew la nit ki mun na jékki-jékki nekk jullit waaye dem ba mujjantalam eh, ji ko kéefër dugg ko wala jëmmi kufru ci boppam dugg ko mooy yonub saa sam lu noo wax ne dinañ dem jamono joo xam ne ne nit ki dina xëyee jullit waaye gontoo nekk yéefar nit tamit dina xëyee nekk yéefar gontoo nekk jullit kon moo tax nga war a muslu suñu borom tabaraka wa ci ngay nekk li nga xam ne moom mooy yéefar wal faxri yonent saa sam dalaan muslu tamit ci ñàkk ndax ñàkk lu muy indil nit dafa bëri ñàkk lu muy lu mu waral dafay bëri tamit nit ki bu amagul daanaka mënuñ ko xam exactement mais bu amee ci nañuy xam dëgg-dëgg jikkoom de sa tamit ñàkk parfois tamit day tax nit ki saalit nit ki di def loo xam ne ne euh, waru ko woon def fi mu ne am na koo xam ne mu ngi sàcc xëy na xëy na bu amoon du sàcc am na ñoo xam ne xëy na ñoo ngi nekk di lu ñuy woyee jaay seen bopp xëy na bu ñu amoon xaalis dëgg duñ ko duñ ko def naka noonu tamit am na ñoo xam ne fi mu ne ñoo ngi dugg ci ay tooxi doona ñoo ngi triande ay nit waaye xaalis moo tax kon bu ñu amoon xaalis dëgg-dëgg di nga gis ne ne yooyu yu bari yi nga xam ne ñoo ngi koy def duñ ko duñ ci dugg kon loolu da ngay gis moo tax nga gis ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ci muslu ndaxte déjà ñàkk rek fitna la boo xam ne ne nit ki du ko war a muñ wa a'uuzu bika min xabri maa ngi lay muslu tamit ci li nga xam ne mooy mbugalu bàmmeel ndax ci biir bàmmeel tamit dañ ciy mbug dañ ciy mbugalaate donc lu jar a bàyyi xel la lu jar tamit di ñaan la lu bëri dañ ba mu xamee ne bàmmeel dañ ciy mbugale dañul di ñaan saa yu jullee ba pare suy borom tabaaraka wa taala musal ko ci li nga xam ne mooy mooy mbugalu bàmmeel laa ilaha illa ant amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ku dul suñu boroom tabaraka wa taala واخشى الدسائس من جوع ومن شباع فربما خمصة شر من الدخان واستفرغ الدمع من عين قد امتلأ من المحارم والزم حمية الندم incha allah beneen ñaan bi nga xam ne tamit boo xëyee mën nga ko ñaan te mu nekk ñaan boo xam ne ne ñaan bu am solo la kon ñaan yi ñu wax sànq yëpp benn bu ci nekk ñett yoon nga koy wax bii nag mooy xasbala bokk na ci li ñuy wooyee xasbala mooy xasbiya allahu laa ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim xasbiya allahu laa ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim xasbiya allahu laa ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim te mooy doyloo naa suñu boroom tabaraka wa taala bi nga xam ne ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ku dul moom te ci moom laay wàkkiru samay mbir te moom mooy rabbul arshil azim mooy boroom nguur ngangu naay bi nga xam ne ne bu màgg bi la bu bu rëy bi la loolu nag ñaan la boo xam ne ñaan bu am solo la xasba la lu jara bëri la moom mooy xasbunallah wala xasbiyallahu laa ilaha illa wa alayhi tawakkal huwa rabbul arshil azim siixa bi moo ñëw na ci ci alquran at xasbunallahu wa nixmal donc loolu noonu yëpp mooy li nga xam ne ne eh, mooy lu aju ci xasba la te lu am solo la ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa wax ne yonent yàlla ibrahima alayhi salaam buñ koy génnee ci safara maam buñ ko dugalee ci safara si moom la ñaanoon ba suñu borom tabaaraka wa taala muccal ko ci ci safara soosu kon loolu day wane ne képp koo xam da ngaa nekk ci problème boo xam ne bu xat bu xat la di ko bëril di ko di ko wax ci jamono jooju lu baax la lu am solo la naka noonu tamit bu fekkee eh, boo xëyee ba julli ba pare bu boobaa da koy wax sept fois wala saa yoo jullee pare da koy wax sept fois. النفس والشيطان وعاصهما وإنهما محضاك النصح فاتهمي ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم naka noonu tamit ñaan bi nga xam ne ne moom nañ wax raditu billahi rabban wa bil islaami diinan wa bin muhammadin wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyan wa rasulan raditu billahi rabban wa bil islaami diinan wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyan wa rasulan raditu billahi rabban wa bil islaami diinan wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyan wa rasulan ñaan la boo xam ne dañu ñaan bu siiw la mais ñu bëri xamuñ njëriñ bi dañ koy dégg rek di ko di ko répété waaye ñu bëri mosuñu dégg njëriñ bi wala mosuñu xam njëriñ bi boo mosul xam njëriñ bi xamal ne ñaan bu rëy rëy la la boo xam ne ne njëriñ yi ci nekk rek euh, jar na di wax saa soo jullee ba pare ci suba si dañ ko gën a sopp ndax yonent bi sallallahu alayhi wa dafa wax ne képp koo xam ne yaa ngi koy wax wax nga ko trois fois respecté ko di ko wax saa yoo xëyee ba julli ba pare nga wax ko ñetti yoon raditu billahi rabban wa bil islaami diinan wa bi muhammadin salallahu alayhi wa sallam nabiyan wa rasulan bu boobaa garantil ne la ne dañ lay garantil ñaari mbir dañ lay garantil dugg àjjana naka noonu tamit dañ lay garantil nga ngërëmu suñu borom tabaraka wa taala keroog yowmal xiyaam doo am dara loo xam ne danga koy tiit ci lu aju ci ngërëmu suñu borom tabaraka wa ma kon képp koo xam ne bëgg nga am ngërëmu suñu borom tabaraka wa taala keroog yowmal xiyaam del bëril di wax ñaan bi naka noonu tamit koo xam ne ni danga nga bëgg a dugg aljana waaye nag ngërëmu suñu borom tabaaraka wa taala moo gën a màgg àjjana ak lépp lu nekk ci biir ci biir àjjana naka noonu tamit beneen ñaan boo xam ne ne mu jara di ñaan la mooy yaa xayu yaa xayuum bi rahmatika astaisu aslix li aslih li shani shani kulluhu wala takilni ila nafsi tarfa tarfatal ayn yaa xayu yaa xayuum birahmatik astaisu aslih li shani kulluhu wala takilni ila nafsi tarfatal ayn mooy ne yow mi nga xam ne yaay ki dund ki dund boo xam ne ne deedu ci topp yaa xayuum ki taxaw ñépp ba taxawu boppam nga xam ne soxlawul kenn ku ko taxawu birahmatika ci sa mànde instant yi su ci ci lay ci ko sukkandiku ci lay doxe ci lay ci lay ci lay yëngatoo aslih li sha'ni kulluhu yàlla nga ma dimbali ci mboolem samay mbir nga nga nga jëmale ko kanam maanaam nga yéwénal sama mbir yàlla nga yéwénal samay mbir wala takil ni te bul ma bàyyi ila nafsi jëme ci maam bu ma bàyyi ak sama bopp tarfatal ayni bi nga xam ne moom mooy même bu fekkee ci benn xefe xippi bul ko bul ma bàyyi ak sama bopp ndax nit ki dafa nekk koo xam ne dafa ñàkk xam meloog nit ki moom mooy am makat matadi meloog suñu borom tabaaraka wa moom mooy ak matt moo tax nit ki war a ñaan suñu borom tabaaraka wa taala ci matam mu mottali ko donc moo tax nga gis ñaan bi muy wax ne suñu borom tabaaraka wa taala déjà moom mi nga xam ne moom mooy taxawu nit ñi mooy taxawu boppam taxawu nit ñi ki xam ne tamit ku dundul moo la dundal n'est-ce pas ba nga xam ne ne mooy joxaate sax nit ñi dundul wala mooy permettre nit ñi di dund kon kooku lu aju ci sa dund yëpp xam na ko lu aju ci sa li lay taxawloo yëpp xam na ko moo nga gis ma commencé yaa xayu yaa xayuun kon ci sa yërmande maa ngi lay ci ci lay sukkandiku waaye tamit yowee na la lépp loo xam ne dafa aju samay mbir kon yoral sama sama gérance yorool sama jëmm lépp lu may fonctionné loo naka noonu tamit lépp loo xam ne ne samay mbir la yoo xam ne dama koy projeté yàlla nga ma ko yoral yàlla nga ma ci timbali yàlla nga ma ci gindi waaye nag bul ma seetaan bul ma bàyyi ak sama bopp ndax sama bopp lu bëgg sama bakken lu mu bëgg comme imam Busayri mu ko waxee sànq sama bakken lu mu bëgg moom mooy noflaay sama lu mu bëgg moom mooy du def dara loo xam ne dafa nekk ci ngër ci ci ci ci ci ci lu aju ci ngër ngërëmu suñu borom tabaraka wa taala kon bul ma bàyyi ak sama bopp tala fatal ay ni lu tolloog xefe xeppi astaghfiru llaha min qawlin bila amalin laqad nasabtu bihi naslan lidhi uqumi amartuka alkhayra lakin ma tamartu bihi wa ma istaqamtu fama qawli laka astaqimi beneen ñaan ñi nga xam ne ne tamit nit ki bu xëyee da ko war di ñaan te mooy lu aju nag ci musluwaay yi suñu borom tabaaraka wa taala naka noonu tamit euh, yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba ñu génnee ba ñu dàqee li nga xam ne mooy ay njabar li nga xam ne ne moom mooy euh, ay talsam ak ak yenn yi nga xam ne ne daanaka nit ñi dañ ciy xërtal di ci dem yonent bi salaam tari ko tare ko naka noonu tamit suñu borom tabaaraka wa taala tere ko ci nañ remplacer loolu nag ak leneen mooy loo xam ne ne mooy tax nit ki mën a protéger wu contre yi nga xam ne ne moo ànd ak àdduna te mooy ay cat ay làmmin ak ñoo xam ne dañoo soxor nga xam ne dañuy dem ci ay njabarkat ak yu yu kenn xamul rien que pour yàkkal ay nit suñu borom tabaaraka wa taala indi nag solution bi nga xam ne ne moo gën ci solution la xam ne képp koo xam ne yaa ngi koy jëfandikoo bu boobaa yooyu noonu gaay di tiit ak yaay yaay di liggéey dara du la ci dal moo tax yom saa sam wax ne képp koo xam ne ne da ngay wax auzu bi kalimatillahi tammati min shari ma xalaq auzu bi kalimatillahi tammati min shari ma xalaq auzu bi kalimatillahi tammati min shari ma xalaq mu ne yow suñu borom tabaraka wa taala wala man ci boppam maa ngi muslu maa ngi sàkkoo musluwaay ci kàddu suñu borom tabaaraka wa yi nga xam ne ñooy yu gën a mat yi ñooy yu gën a rafet yi ñooy yu gën a mat yi ci lan min sharri maa xalaq ci lépp loo xam ne lor la boo xam ne ne suñu borom tabaaraka wa taala ah, dafay da dafay tukkee ci mbindeefam yi maa ngi muslu ci bépp lor boo xam ne day tukkee ci mbindeefam yi mi def suñu borom tabaaraka taala di ko jaaree ci kàddu yi nga xam ne ne mooy kàddu yu gën a mat ci yu suñu borom tabaaraka wa taala kon loolu yonent bi sallallahu moo tax nga gis ne mu wax ne képp koo xam ne da ngaa wax ñaan bi bu boobaa amul dara loo xam ne ne dalay lor ci yi nga xam ne mooy jóge ci mbindeef yi ci journée boobu waaye naka noonu tamit bismillahi allazi laa yaduru maasmi maasmihi shay'un fi l ardi wala fi sama wa huwa samiul alim bismillahi alladi laa yaduru maa asmi shayun shayun fi l ardi wala fi sama wa huwa samiun alim bismillahi alladi laa yaduru maa asmihi shayun fi l ardi wala wala fi sama wala fi samaai wa huwa samiun alim mu ne maa ngi tàmbalee ci suñu turu suñu boroom tabaraka wa taala bi nga xam ne ne amul dara loo xam ne ne mën na lore ci li nga xam ne moom mooy teewaayam ci bépp mbir boo xam ne ne suñu boroom tabaaraka wa taala du ko bind ci asamaan diggante asamaan wala ci asamaan ak ci suuf te moom moom moy kan moom mooy ki nga xam ne ne samiun aji déggaakoon na alimun ki ko aju ki aji xam la kon loolu tamit yenu saa sam daal di wax ne képp koo xam ne ne loolu danga koo jàng asamaan si maam boo ko jàngee ñetti yoon ne ko noonu tamit bi ñu njëkk wax sànq a'uuzu bi kalimaatillaahi taammaati min sharri maa xalaq ñetti yoon bii boo ko waxee ñetti yoon mooy bismillahi allazi laa yadurru laa yadurru maa ismihi shay'un fil ardi wala fi samaai wa huwa samiun alim amul même bu fekkoon asamaan si doonoon daanu maanaam asamaan si bu doon daanu yow sa place bi nga nekkee da ngay mucc maanaam asamaan si du daanu sa kaw kon nit ki nag comme li ma koy waxee nit mënul njabar njabar njabar ba njabar asamaan daanu loolu mënta ne kon yun saa sama ne même bu fekkoon maanaam dafa dépassé sax niveau ay euh, njabar yu demee mais catastrophe naturel bu fekkoon dafa loon am asamaan si jékki-jékki daanu kon yow ci boppam da ngay mucc waxuma laan nag kon lu aju ci ay njabar ak yeneen ñu gars yi di liggéey kon loolu ñaan la boo xam ne ne lu jaare bàyyi xel la lu aju ci yooyu nag nit ki li tax euh, alquran du ko du ko maanaam lu tax mbir yi di leen di leen sonal mooy ne dañ fi naan ñuq li nga xam ne yonub sansam moom la jàngale dem toppi leneen loo xam ne ne loolu yëpp lor la parce que loo li ñu la wax ne la lii nii baax na ci nàngam dañ naan la euh, cat bi nag wala li nga xam ne moom mooy koy toj nag mooy nàngam alors que alquran ak sunna amul dara lu koy toj boo ko xasee ba takkoo gàllaaj la boo xam ne boo ko xasee ba takkoo di ko wax di ko jàng di ko utiliser ngir protéger sa bopp amul dara lu ko mën a toj amul dara loo xam ne mën na toj li nga xam ne moom mooy ñaan yi nga xam ne yoon sa sa moom la moom la jàngale man وشد من سغب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشحا مترف الأدب وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعد على العصم وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الآمر الناهي فلا أحد البر في قول لا منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم دعا إلى الله مستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم